asalaamaaleykum voilà asalaamaaleykum asalaamaaleykum asalaamaaleykum mbokk yi ziyaar naa leen mbokk yi nuy naa leen asalaamaaleykum waaye mbaa yi nag may jot cinq sur cinq mhm. yee gars yi bëggee naa leen bëggee naa leen mbokk yi xarit yi ah gars yaa ngi yegg si jaaraama jaaraama ziar naa leen ziar naa leen sama gars yi bëggee naa leen géej nañu géej nañu ci live Adama Tunkara ziar nañ la sam samnus ziar nañ la bu baax a baax a baax Mohamed Diakité Cheikhou Diabaté Mariama Diabaté Ñima Mané Didi jàlloo ziar nañ leen senegal 221 waaye lu tax waxatoo ah non maa ngi nii ñëw naa ñëw naa dama jàpp fan yi nag sama gars yi maa ngi ci ay voyage rek ngeen baal ma ngeen baal ma euh, xam nga Euh, comme je vous dis tamit euh, dañu nekkon ci yenen yu ndaw mais ma ngi leen di Sénégal 221 Lobabs, Babs ziar na la sama grand Abou Coréen ziar François Diouf Maymouna Djemé, Baba Fall Mami Sis ñi ma Bilou salut Balaké bonsoir Clémentine ziar nañ leen aha sama zian bës leen ci kër yi bu baax a baax a baax a baax seen général yegsi na waaw sama gars yi maa ngi jégalu maa ngi jégalu fan yi xaw naa raar tuuti ah ndeysaan gars yaa ngi ni waay merci beaucoup merci merci merci jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup merci maa ngi gis seen commentaire yi ak kër yi ak sang yi oh wonderful nice nice nice lingeer njaay bëggee nañ leen Maguette Diop ah Adramanyan ziar nañ leen Jibril Diatta Sonko ziar nañ leen Pape Fall bëggee nañ leen la voce mi Incomoda Incomoda aha Linguère wow, Cheikh Faye Aminata job aha ñu ngi leen di ziar wow merci beaucoup way merci merci à vous sama gaay nak Euh, gars yi dañ ma nekk di pirater pirate yu métti métti métti chaîne YouTube bi sax euh, yàllaa ñu suturaal rek moo tax mu rëcc waaye gars yi dañoo dañ ma attaque façon piratage bu mettee métti métti boo xamante ni euh, jàppale leen ma parce que chaîne bi ndax maa ngi dinaa mën a jotaat samay abone comme ni ñu doon jotee live yi tey dinañ ci xam dara donc jàppaleen ci partage bi bu baakha baax dañ ma pirater ci facebook piratage bu metti metti metti parce que wa APR ay yàmbar lañ quoi euh, xex par procuration lañ bëgg man duma man duma duma leen par procuration man du ngeen ma utiliser ci sen xex bo leen bëgge song ñom Diomaye ak Sonko da ngeen di am fit parce que yeen ay tapet ngeen ñun jamono buñ doon xex ak Macky Sall mandat d'arrêt international taxul ñu delu ginaaw menace de mort taxul ñu delu ginnaaw mais yeen ay tapet ngeen da ngeen bëgg utiliser KAYS eh, pour utiliser samay plateforme pour di saga Sonko parce que ñame woo leen assumer sen responsabilité do leen jël guerrier yi gor yi jàmbaar yi révolutionnaire yi ngeen bëgg leen utiliser pour def sen xeex man kenn duma utiliser pour ben combat par procuration parce que ñun on sait ce qu'on veut on sait pourquoi on s'est battu donc ñun suñu xeex suñu xeex bi ñun ñoo koy définiral suñu bopp kenn duñu utiliser ci xeex boo leen bëggee xeex Sonko ak Jomaay jël leen seen responsabilité ngeen génn attaqué leen song leen man duma leen ko defal man bu ma amee message bu may jàllale Sonko ak Jomaay dama leen koy jàllale bu ñu génnee ci loolu régime bi ñun ñoo ko fal donc bañuñu ko dañ koy soutenir ba mu réussir mais bu fekkee am na dëgg boo xamante ni moom lañu leen war a wax dañuy génn wax leen ko après ñu jàll ci leneen mais ñun mënoo leen ñu utiliser enregistré suñu ay vidéo yoo xamante ni dafa may dëgg ñuy wax président Bassirou Diomaye fay ngeen enregistré yooyu di ko génnee ay tout moment di naan waa mu ngi nii ñoom génn nañ ci Diomaye déedéet ñun on les soutient sans pour autant euh, di leen raay chaque jour di leen naan lépp lu ngeen def baax na parce que nit boo ko bëggee danga koy wax dëgg donc ñun ci loolu lañu nekk ñun du ñu noonu ñoom Diomaye boo leen bëggee nekk seen ay noon xeex leen jël leen seen responsabilité ngeen génn attaqué leen man du ma noonu régime bi régime bi ñun ñoo ko fal. au prix de notre vie, au prix de multiples sacrifices voilà donc nous régime bi dañ koy gungé mu réussir gungé nag ba réussir wax ni ah changer len ko de d'accord ñu ci daf len li de ni lañ ko gissé jël ko en compte ci nous, andé. ci bu sincère dama bëgg donc nous, pirater sama groupe Facebook di fa Sonko. gaa yëpp di naan kaay soof la kaay soof la man du ma lâche man doo leen mus a gis audio boo xamante ni nee nañ kaay soof moo doon jow kii audio bi fuité wala kaay soof moo wax lii audio fuité parce que man du ma man lu may wax nit boo ma woowee sax nga nekk nit boo xamante ni xam naa ci bale beneen boor bi nga bokk lu ma lay wax mooy loo xam ne boo ko génnee sax man di nga dégg ma wax ko publiquement donc du am sens parce que je man du ma nit bu foo boo xamante ni damay wax dara ci suuf buñ ko génnee suba ma nekk ci ay problème ma naan ah bu ma xamoon duma ko doon wax déedéet moo tax mosoo leen gis benn audio wu Kayz Fof bu fuité boo xamante ni nee nañ la audio Kayz Fof fuité na parce que lu may wax ci suuf loolu lay wax ci kaw man du ma jow doomu aadama yal na ma ko yal na ma ci yàlla musal donc je suis entier man bu may génn damay génn live wax lu ma d'accordul damay wax lii ak lii laa d'accordul après jàll naa ci leneen donc pirater samay groupe di ma jéem a jaxase ak sénégalais yi di naan KSFOF mooy def lii dafay capture d'écran di ko dawal ci WhatsApp yi pour yaakaar ni man da ngeen di yàq sama image wala da ngeen may jaxase ak patriote yi combat bi ñu ngi ci depuis plus de dix ans sama gars yi ñu ma xam xam nañ ma ñu may soogay xam ñoom ñoo may soogay xam mais ñu ñu xam ci combat bi ñoom xam nañu ñun ñooy ñaan pendant dix ans on a été irréprochable ci combat bi. donc euh, loolu ça ne commence pas d'aujourd'hui ba yéen ngeen mën ko yàq ak seen ay ay sabotage ak seen piratage ngeen yaakaar ni dix ans liggéey dix ans mun ngeen ko yàq ci benn deux mois wala trois mois munoo leen ko munoo leen ko donc euh, dañoo pirater sama groupe bi mu am benn waay bu ci publier chaque jour di saaga Sonko ak Diomaye Euh, gars yi di naan kaay soof la kaay soof la kaay soof la man dama am samay page loolu groupe la group ku nekk day publier benn affaire partager ko ci groupe loolu groupe la loolu du page lépp lu ñu bind ci sama page lépp lu ma bind ci sama page te annoncé wu leen sama page bi piraté nañ ko loolu mun ngeen ne lii page kaay soof la mais groupe boo xamante ni ñëpp ciy partagé comme groupe WhatsApp la groupe WhatsApp tey boo ko créé ku nekk mun na jël benn information wala benn benn affaire bu mu bëgg a partagé mu tëmbal ko ci groupe boobu groupe Facebook bi noonu la demee du page groupe la. groupe la moo xamante ni ku nekk day jël dara mu tëmbal ko léegi man maa nekkoon administrateur ñoom Macky Sall bu ñu doon tëmbal lu bon dama ko doon jàpp sànni ko fële ba pare bloqué leen léegi man ñu piraté ma dindi ma comme administrateur ñoom ñu am liberté léegi di fa partager lu leen neex mbir mi noonu la fa demee groupe la groupe comme nga créé groupe euh, groupe euh, WhatsApp ku nekk di ci partager noonu laa créé groupe Facebook mu am plus de soixante mille sénégalais yu ma fay suivre. ñoom ñu piraté group boobu di ci partager lu bon contre Sonko ak Diomaye après nit ñi naan noo kaay groupe soof la lu tax mu fay bàyyi lii muy jàll mais man piraté nañ ma dindi nañ ci groupe bi lan ci mën léegi <laughs> maa ngi gis ñëpp di naan waa kaay lu tax muy bàyyi lii mu jàll kaay soof lu tax mais man piraté nañ ma man bloqué man mii sax bokkatuma ci groupe bi ci ci ci ñu koy gere sama contre dinaa mën a partager dara ci groupe bi comme ñëpp waaye mënuma ci dindi kenn. mënuma ci yokk kenn mënuma ci dindi benn publication amatuma ci benn droit boo xamante ni moo leen ko ci hmm? donc noonu la demee sama gaay <coughs> man je suis entier man lu may wax dama koy wax en live man duma ma doomu aadama bu fekkee am na kenn ku mës a ne man am naa video bu kaay soof di jowee kii rek na ko génnee publier ko ci réseau sociaux bu fekkee am na kenn ku am man fu may jowee nit lépp lu ma wax doomu aadama sañ naa génn live wax ko ko boo may mere nga mere après euh, je t'ai dit ce que je pense ñun la lañu mel noonu lañu ma yaree voilà donc maa ngi leen di bëggee sama gaay lolu parenthèse la bo xamante parce que ñu bari affaire bobu daf leen embêté ci sama groupe euh, ñu gis ñu fay saaga Sonko maa ngi jégalu man mi ça me fait mal parce que bu ma ko euh dama bind Facebook directement ma leen conversation yépp maa ngi ko fi yor li ma bind Facebook ne nañu tëj group bi parce que les instant yi man perdre naa bi te groupe bi ñu ngi koy utiliser di yàq euh, suñu combat bi di ko yóbbu sens boo xamante ni ce n'est pas le sens de départ mais Facebook seen yoon nekku ci Facebook bu ñu mënee débarrassé wu ci man dañuy sant yàlla parce que damaa sonal Facebook dañ maa bloqué bloqué bloqué bloqué ba sonn léegi bu ñu gisee nu ñu mën a débarrassé woo ci man ñu piraté ma ñoom dañuy sant yàlla dañ ne la enfin waa ji bëggoon nañ ko dàq suñu plateforme waaye chaque jour mu ñëwaat. donc noonu la fa demee maa ngi jégalu patriotes yëpp ah. maa ngi leen di jégalu bu baax donc tey ma ñëwoon pour ñu def live waxtaan tuuti après ñu ibbi ligne bi dinaa woo RG <laughs> RG RG RG dégg naa am na am na ñu ñu approprié wu sa tour RG ne ñoom ñooy RG non ñun dañoo am suñu RG boo xamante ni ça n'a rien à yàgg na ci combat bi ah. maa ngi dégg RG ak yi may woo naan ma ah kon kaay foofu RG non RG dafa exister depuis début combat bi. donc euh, ak ñeneen ñoom yaay astu na man dama am sama équipe boo xamante ni équipe boobu moo gagné combat bi ñoom yaa astu ñoom père Ousmane Pouy ñoom Bineta Balde ñoom Soknet xam nga dañoo am suñu équipe ñun quoi ah ñoom Mariama Gassama ah dañoo am suñu équipe boo xamante ni équipe de choc la équipe boobu dafa yàgg ci combat bi avant tout chose père Ba ñoom Blaise xam nga. Le am suñu équipe boo xamante ni équipe boobu moom moo gagné combat bi contre Macky Sall équipe KS Fof TV ah donc euh, mu am combat bu sincère boo xamante ni moom lañ ci mëne combat bu jub combat bu sérieux équipe boobu mu ngi fi ba équipe bi musul bouger hmm? tout le monde est là. donc euh, RG dinaa ko woo ci kanam dugal ko <laughs> RG RG nag usurpation <laughs> usurpation de RG am na <laughs> usurpation de sama RG bi non RG dafa def liggéey boo xamante ni tamit mënuñu ko usurper noonu ah RG dafa def liggéey bu am solo ci combat bi ah. ba bu bu ko Macky Sall bëggoon rey yondi woon nañ ko huit cent euros te mu nekkoon Sénégal mu daw. Hmm, dem yéen ba yeneen dëkk yu nekkoon ci sous région bi yéen yéen a cotisé woon huit cent euros yu ñu ko defaloon cagnotte jamono yu ko Macky Sall bëggoon rey senegal ba mu daw ci yeneen dëkk ah waaw kooku kooku kooku méritam tamit nañ ko ko delloo ko ñu xam ne li mu liggéey moom moom moo ko liggéey quoi lu <laughs> mu liggéey moom moo ko <laughs> Sognet bëggee nañ la Cheikha wala ñoom Cheikha ñoom Claude Gomis ndeysaan équipe baa ngi nii équipe de choc bi ah xam nga waaw gaa yaa ngi nii hmm, waaw équipe de choc baa ngi nii <coughs> ndeysaan merci beaucoup waay production ndeysaan sama gaa yaa ngi nii hmm, voilà <coughs> ñoom Peter ñoom Peter Tosh ñoom général ndeysaan général dafa dem ci kaso bi général bu mu jógee ci kaso bi ba léegi awma nouvelle am ngir yàlla bu fekkee am ngeen nouvelle général nee leen ko xoolal depuis bu mu génnee kaso bi ba léegi maa ngi tenté numéro yi mu yoroon balaa mu dem ci kaso bi général bu dee yaa ngi seetaan bi ngir yàlla def ma signe quoi général parce que sa affaire def maa inquiété inquiété inquiété woon naa ci sax Cheikh Baara di ko laaj sa affaire général parce que dafa nekkoon problème ci man.

waa sama gars yi donc dinañ ibbi ligne bi ci kanam tuuti gars yi bu ñu yegsee dinaa ko gere ok Soknet defal loolu waaye général général ba léegi ba léegi duma ko dégg quoi wallahi affaire boobu metti na ma trop bu mu génnee ci kaso bi ba léegi amuma nouvelle am hmm, dañoo jàppoon samay soldat quoi billaay waaw ñoom Peter ñoom Peter Tosh waaw <coughs> donc sama gars Euh, mbir mi euh, ñoom jomay ak Sonko ñu ngi ñu ngi jël seen responsabilité quoi donc alhamdulillahi rabbil alamin donc am nañu chance am gouvernement boo xamante ni ils sont très à l'écoute hein, ça quand même euh, il faut que ñu féliciter leen ci parce qu'ils travaillent avec des jeunes donc man lii laa mosoon wax depuis premier jour sama laay bu régime bi falloué donc maa ngi gis ni suñu ay kaddu gaay ñu ngi koy jël en compte mais ñu man jeune mooy changer réew <laughs> non sama gars yi nag maa ngi ci yéen parce que euh, man lii laa gëm boo demee ci dëkk yu mag nga dem tu vois c'est la jeunesse moom la ñuy confier ay responsabilité En France da ngay dem ci ay administration da ngay gis ay jeunes yu am 20 ans ñuy liggéey barki yàlla boo demee ci yenn préfecture yi sax boo laajee ñu fa nekk di liggéey âge dinañ la ne 20 ans. 19 20 ans 21 ans 20 ans 21 ans ay 20 ans commencé nañ pleinement di liggéey ñu confier leen ay responsabilités yu mag mais Sénégal lu nekkoon culture Sénégal mooy nit mu dem ba am 50 ans 60 ans ñu commencé ko jox responsabilité pour ñoom âge boobu moom mooy âge âge bi nga xamante ni war nañ la confier responsabilité nit bu demee ba am 20 ans ba xarañ ci liggéeyam jox leen ko responsabilité mu engagé ko parce que toll na ci ndaw am na énergie am na doole boo xamante ni bu demee ba am 60 ans du ko mënati bu vous ba 70 ans de ko mën a bu ba am 50 ans kattan boobu day wàññeeku donc bu mu nekkee ndaw nga koy responsabilité parce que moom la koy jamono la koy bu 50 60 75 ans jamono yooyu dooleem bi wàññeeku na donc nous, nous sonko ak jomay yaakaar comprendre nañ ko suffisamment euh, ba ci nomination yépp on voit les jeunes toujours au devant c'est ça, il faut responsabiliser, il faut responsabiliser la jeunesse. Il faut faire confiance à la jeunesse parce que Sénégalais dañ leen wolo parce que vous êtes une jeunesse yéen tamit Bassirou Diomaye Faye du pas Ousmane Sonko du pas ñi sont entourés duñu ay donc euh, loolu tamit c'est une chance il y a quelques vieux yo xamanteni ni jar nañu bàyyi ci kër gi donc euh, sen expérience et tout mais ñu mën porter responsabilité yu gëna c'est la jeunesse donc lolu tamit alhamdulillah biñ ko waxee ci premier live yi ba léegi maa ngi gis ni nomination yi y a beaucoup plus de confiance envers la jeunesse et ça quand même c'est tout à votre honneur ça montre que message bi yéen a koy jot donc ñu ngi leen di féliciter ci loolu bu baax a baax a baax Lamine Ndiaye ok Lamine Ndiaye Lamine Ndiaye dinaa ibbi ligne bi léegi léegi comme ça ma dugal la wax ma juste numéro bi ci lan la terminé comme ça booy commencé woote dinaa xam ne yow yaay woote donc Lamine Ndiaye ok maa ngi taal téléphone bi dinaa leen dugal yéen ñëpp ngeen joxe seen avis donc jàppale leen ma ci partager live bi sama gars yi parce que live bi dama ci am dama am problème ak sama réseau ci ay piratage yu ja yu garaaw laa nekk donc jàppale leen ma moo tax seen YouTube bi dem na ba amatul benn euh, interaction YouTube rétrogradé na ko yóbbu na ko ci ginnaaw donc lépp lu may def live ñu bari duñu jot notification yi. bu dee partagé woo leen ko wala bu dee like woo leen ko suffisamment noonu yi nag loolu moo leen di metti like leen like leen like yu nit yi di like pour yéen doo doomu aadama yi seen vie ça se résume à YouTube ngeen di naan like like like pay il nonka like bu fekkee dafa am ku mu déranger dangay dem seetaan lu la neex ah ñun fii nii on est une famille ku ñu may ne likeel ñooñu ñu déranger leen parce que ñun ñoo bokk kër gi waaw koo xamante ni nag loolu déranger na ko da ngay dem feneen foo xamante ni kenn du la ko fa laaj buñ ko laajee fii nit rek c'est parce que sëkk nañ ko. voilà donc gars yi boo leen ko mënee bës booleen munee mënee bës si loxo bi bës leen ko bu baax a baax ba bouton bi dugg ci biir waaw comme ça dina ñoo xamante ni seen xol yi dina gën a bon boo deful live ñu ne waaw léegi dafa am xaalis dafa riche léegi yoonam nekkatul ci live bàyyi na senegal léegi mu ngi dundoo dundam fàtte na senegal doo xam doomu aadama yi lu ñu bëgg waaw YouTube bi ngay amee xaalis YouTube bi ngay amee xaalis bàyyi naa YouTube bi. defatuma direct pendant ñaata temps gis nañ ñi sama àdduna baa ngi gën a continuer mu ngi gën a neex dem nañu ba léegi xamatuñu lu ñuy wax ñu ne déedéet léegi dafa am xaalis bàyyi na Sénégal mais doo xam doomi aadama yi lu ñu bëgg booy dafay vidéo chaque jour ñu ne xaalis lay wut boo defatul vidéo ñu ne léegi affaire am baax na léegi bàyyi na bàyyi na xeex léegi lan la ñu war a def mais doo comprendre doomu aadama yi lu ñu bëgg yaakaaroon nañ ne bu ñu toogee defuñu vidéo ñun su suñu àdduna day yàqu wala dootuñu amati lu ñuy lekk. dem nañu ba gis ni léegi dafatuma vidéo ñu ne déedéet tamit léegi dafa am xaalis moo tax dafatul vidéo bàyyi na senegaal bàyyi na xeexal Sénégal léegi lan la nit ñi bëgg laaj naa leen lan la ñu bëgg loo def ñoom am na nuñ koy gisee booy def live ñu ne xaalis lay wut boo defatul live ñu ne léegi am na xaalis waaye leen tamit dañ nañ yéeneel doomu jàmbur yi jàmm <laughs> nañ yéeneel doomu jàmbur yi jàmm nañu yéenelante jàmm ñii nga xam ne ñii nii dañ leen di yéene si torox yàlla bu tuddul nii dinañ torox duñu torox nañu yéene leen te jàmm ah boo deful live problème boo defee live problème léegi ñoo tax ñun suñu àdduna dañuy avancer ci ñu ñu waree avancer rek du loolu moo tax sax defuma live ak yéen de mais dama nekkoon ci ay voyage maa ngi jégalu parce que léegi dama am beneen manteau boo xamante ni manteau homme d'affaires tamit ci la bokk ant ak ci panafricanisme bi dinañu comme gis ngeen ni dem naa Guinée bu ma jógee gine dem naa Danemark bu ma jógee Danemark dinaa dem ci yeneen dëkk incha allah loolu yëpp ci business ci cadre business bi la tamit ci cadre relation yi ak euh, opportunité yi nga xamante ni mun nañ ko créer ay dëkk donc képp koo xamante ni yaa ngi ci dans le domaine du business tamit nga bëgg ñu waxtaan business waxtaan opportunité tamit donc sama numéro bi mu ngi nii affiché wu ci écran bi képp koo xamante ni business moo la intéressé wala ay investisseur ay bailleur yooyu nga bëgg di di di di di mëne di ko def mun nañu nekk ci cadre boobu tamit à côté du combat d'activisme bi nga xam ne moom la ñu mëne donc loolu kese la loolu kese moom ma téye woon <coughs> loolu kese moom ma téye woon voilà waaw sister xoolal fii mënuma la fii mënuma la branché ci taabal bi gaa yi dégg la maa ngi en live nii yaa ngi seetaan yeah je direct nii yaa mbaa yaa ngi seetaan live bi ok léegi xoolal xaaral ma woo la comme ça mu mën la dugal gaa yi dégg la dégg nga fii nii sama beneen numéro bi la ok ok wallahi yena ma gëna manké billahi yena ma gëna manké yena ma gëna manké non kay sof dafa bari ay non quoi mais yalla yalla xam nga nit boye yéwo chaque jour ñaanal yalla mu jox la ay non tamit parce que non yi fuñ lay xaaré chaque jour da nga da ngay da lay yok jom da ngay di gëna am jom parce que di naan non yi fi lañ may xaaré xaar ma bañ daanu ci kàmb boobu hein ah, donc dee leen ñaan yalla tamit ngeen am ay non parce que du lu bon parfois ça te permet. d'aller plus loin wallahi man maa leen raw man maa raw man maa raw vous m'avez beaucoup manqué aussi vous m'avez beaucoup manqué parce que dafa am relation bo xamanteni ça s'est créé entre nous euh. waaw maa ngi tal téléphone bi maa ngi téléphone bi maa ngi téléphone bi ngi téléphone bi baal leen ma maa ngi téléphone bi dina len jël yéen ñëpp ñu waxtaan donc sama gaay euh ma wax len ben affaire bo xamanteni tamit remarqué na ko quoi euh président Bassirou Diomaye Faye euh man fuñ ma munti invité sur le plan africain bëgg dina dem ay Afrique Media kay yoyu dama ko fay défendre parce que dafa am lo xamanteni gis na ko comme piège té wax na ko ci certains médias yuñ ma invité dina ko défendre tant que gis na ni euh, y a de l'espoir que ñun le président Bassirou Diomaye fay mu nekk euh, un fidèle de notre combat euh, gis nga président buñ ko buñ ko poussé ñun ñëpp ci loxo tubaab yi ci loxo noon yi sur le plan africain gaa yaa ngi koy attaqué maa ngi def ay débat ak panafricain yi di ci waxtaan ak ñoom il faut que ñu bàyyi di parfois pousse suñu dirigeant yi ñu dem ñu jël yoonu tubaab bi ñu dem yoonu yoonu trahison bi euh, lu ñu d'accordul nañ leen ne d'accorduñu ci vite fait ñoom ñu comprendre ne d'accorduñu ci mais nañu xam ne dafa am ñaari tiraillement ñaari block yu nekk di xeex waa système bi dañoo bëgg président Bassirou Diomaye fay mu mel ni Macky Sall ñoom loolu moo leen arrangé président Bassirou ay fay mel ni Macky Sall mu bañ a réaliser dara sénégalais yi dem ba ci biir ñëpp jëppi ko commencé jóg di dal ci kawam mu am ñun ñi nga xamante ni ci beneen bloc bi lañ nekk ñun lan la ñu bëgg mooy président Bassirou Diomaye Faye doon panafricain boo xam ne moom lañ soxla buy tax Sénégal moom boppam léegi ñi nga xam ne dañoo bëgg président Bassirou Diomaye fay mel ni Macky Sall ñoom ci réseau sociaux yi ñoom ñoo koy attaqué di ko attaqué di ko attaqué ba mu yaakaar ni panafricain africain te du ay ay sénégalais dañuy fay ay faux panafricain déglu leen ma bu baax du ma né ay faux panafricain di attaquer sama frère panafricain mais ñeneen ñi nga xamanteni ni ay sénégalais dama découvrir affaire bu doy war bo xamanteni ni mu ngi ci réseau yi ndekété amna ay nit ñoo xamanteni dañuy wax di attaquer le président Bassirou Diomaye Faye sur le plan africain ay nitu APR ñom ñoo leen di fay c'est extrêmement grave hein. ay nitu APR ñom ñoo leen di fay ay nitu APR dañuy jël ay nit ñu nekk Côte d'Ivoire ay nit ñu nekk Burkina ay nit ñu nekk Mali ay nit ñu nekk Niger di leen fay xaalis pour chaque jour ñuy def direct di attaquer président Bassirou Diomaye Fay lolu ci kanam la ko découvrir parce que damay waxtaan ak panafricain di leen enquête di dugg seen biir di xam lu bari waa APR ñoom ñooy financer réseaux sociaux panafricains yu bëri di génn chaque jour di di attaquer Sénégal ak président Bassirou Diomaye fay ak ñeneen sénégalais yoo xamante ni ay infiltré lañu waa APR ñuy génn chaque jour di saaga waa Mali saaga waa Burkina ak saaga waa Niger ñoom tamit loolu mooy seen liggéey lépp pour isoler le président Bassirou ay fay am na des faux déglu leen ma bu baax a baax a baax a baax am na. des faux sénégalais yoo xamante ni ils se disent Pastef du ñu waa Pastef chaque jour ñu ngi taal di saaga waa Mali di waa sa saaga waa Burkina ak saaga waa Niger pour gën a merloo ñooñu pour ñuy gën a attaquer président Bassirou Diomaye fa waa APR yu déguisé lañ bi ma toogee parce que dañoo yàgg ci réseaux sociaux yi sama gars yi <laughs> depuis 2009 laa nekk ci Facebook ci réseaux sociaux yi 2009 ma yàgg lool ci réseau sociaux yi ci xeex ma xam ñu bari bari bari bari ay jaar bari ay. ay rukk bu ma demee ba comprendre ba tok jangat situation bi si ne un grand piège bo xamante ñun buñu ñëwé jappalé ñi nga xamné sans le savoir ñu ngi bëgg le président Bassirou Diomaye Faye échouer di utiliser ñun suñu ay position pour di gëna renforcer ñom luñu luñu nekk di def on est en train de nous faire mal à nous-mêmes on on se fera du mal à nous-mêmes Euh, président Bassirou Diomaye fay nañ koy xëcc ci ñun koy xëcc ci ñun nañuy wax ak moom saa ñu gisee piège nañ koy xëcc ci ñun ñële dañ ko bëgg a récupérer nañ koy xëcc ci ñun ñële ñeneen dañoo bëgg dañ ko bëgg a gëmloo ni africains yi génn nañ ci yow léegi France kese moo la dese comme allié demal ànd ak France parce que africains yi jëppi nañ la nañu fexe. ba soutien bi nga xamanteni mom la wara am sur le plan africain ñu préserver ko soutien bi nek intact Dina ci def lepp luma ma mën mais il faut que le président Bassirou Diomaye Faye tamit di ñu jappalé parce que défendre nit yomb défendre nit neexna mais boy défendre nit tamit dang koy mëna défendre ci ay affaires yo xamanteni do ko gis mu ci fës torop wala mu ci mu ci mu ci engagé wu torop parce que affaire u e bobu ñun taxaw nañu comprendre situation bi mais président Bassirou Diomaye Faye il faut pas que il faut pas que c'est diko dougal ci C'est yoyu lolou man lolou moy sama opposition avec le président Bassirou Diomaye Faye et je l'assume hein, amul luma ko mos attaquer, ludul euh, les morts te gis ni président Ousmane Sonko mu ngi ciy jël ay dogal par rapport ak parents des victimes Je koy lire ci médias yi ñu ko ci remercier bu baax président Ousmane Sonko man ñaari affaire mom moy sama opposition ak ñom moy affaire ak ñi nga xamante ni dañ leen rey jugement amul ci seen cas ak affaire u Macky Sall mi nga xamante ni moom ak lépp lum ñu teg ci kaw suuf mu war a am mu war a am baat ci biir réew mi wala mu mën a dugaat ci biir réew mi di ci di jaxase réew mi loolu yooyu mooy sama opposition à part loolu leneen lépp lu ñuy def man awma ci benn problème ak ñoom ñetti affaire yi moom mooy sama problème Macky Sall sama noon la Macky Sall safara laa ko yéene Macky Sall dee laa ko ma moom la ma yéene woon ma yéene ko ko il faut que ñu ñuy waxante dëgg Macky Sall daf maa yàgg yéene dee moom ak jabaroom ñu may liggéey pour ma dee yàlla jàppale ma ba ma dund ba tey man kooku dee laa ko yéene comme nu ma ko yéene. Euh, loolu du tey lay changé donc nañu fexe ñun ñu xëcc le président Bassirou Diomaye Faye éviter ko ay pièges. permettre ko soutien bu mu pour muy les décisions souveraines les décisions courageuses les décisions historiques que soutien bobu mu suffisamment sur le plan national que sur le plan international parce que combat bi dina ko ils ne sont pas encore à ce stade parce qu'il y a beaucoup d'urgence sur le plan national mais buñu régler pour question nationale yi ba paré dina am ay défis sur le plan africain yo xamanteni ni dinañ ko nara relever te bu boba bu ñu perdre soutien bi rek yàqu nañu ñom kenn dootu leen jappalé te ñun lolu lu moo moy suñu défi ci réseaux sociaux fexé ba lolu bu mu am parce que lolu bu amé rek day dem nek ak tubaab bi parce que tubaab bi bu boba gagné nañ isolé nañ ko ba récupérer ko il ne faut pas qu'on le permette il faut pas qu'on le laisse faire donc légui ah loolu dama koy wax mu leer de Macky Sall moom saa waay waaw moom foog ñu lijjanti ko moom loolu moom kenn du ko seetaan moom Macky Sall foog ñu lijjanti ko par A ou par B foog ñu lijjanti ko ak assassin yi nga xamante ne ñoom ñooy rey yéen foog ñu lijjanti leen parce que réew mi foog loolu dàq ci biir réew mi nii te incha allahu rabbi ak li ma commencé gis ay signes ni gars naan les massacres yu ñu def deux mille vingt et un nañu indi rapport yi nañu indi très bien président Ousmane Sonko nekk leen ci noonu rek. ñii waruñu am jàmm ci réew mi boo gisee ñu naan dañuy opposé wu di ñu attaqué di di di yëkkati seen baat c'est parce que yëkkateeguñu dossier xaj yi bëri ci ay responsable parti APR yooyu ci kaso la ñu war a dem ñoom war nañ tal leneen lu dul toog fii di attaqué président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye yéen war ngeen tal leneen lu dul lool xaar leen ba justice commencé def liggéeyam yéen ñëpp di ngeen commencé am problème président Ousmane Sonko ak président Bassirou Diomaye Faye commencé nañ jël seen responsabilité di fal ñi nga xamante ni ñom ñoo leen yéene jàmm bëgg réussite tamit kaas nañ ko ñu koy corriger le fait que lan la APR continuer woon di def ci poste président Ousmane Sonko li il est tellement prudent que beaucoup fal ay nit def erreur suba def ay musiba ñu président Ousmane Sonko on le comprend <laughs> xam nga président Ousmane Sonko parfois il nous parle sans nous parler donc langage mom non lay waxe il te parle sans te parler man ak moom on se comprend sans se parler inquiétude am moo nekkoon mu fal ay nit suba ñu dégg ni ñoñu détourné nañ ñu ne pourtant Ousmane Sonko ak Basirou Diomaye Faye ñoo leen fal ñom loolu lañu ragal motax tax mbir yi yéexoon mais am ngeen des gens de confiance jarul enquête 3 mois 6 mois 1 an amna ay nit ñoo xamanteni sa way waay bu ñu goreewuloon dawoon nañ yàgg na mais jël leen ñoñu ñoñu c'est des Personne n'est fi disponible déjà comme ni ngeen ko fal def dans dans ce monde amul perfection di nga am ci nit mu dem wor mais yeen sen bonne foi sénégalais xamal nañ xamal nañ ko mais fal gaay continuer ci ci fal ñu avancer parce que urgence bari nañ ñun bëgg avancer ci fal leen gars yi réew mi ñu dàq xaj yi nga xamante ni ñoom ñoo ko yàq ñu avancé ci attendez gars yaa ngi woote de xaar leen xaar yi maa ngi gis seen appel yi maa ngi gis seen appel yi ma jël xaar leen xaar leen ma dugal leen xaar baal leen ma ma pare léegi ma ibbi ligne bi comme ça yéen ñi bëgg a intervenir yokk leen partager live bi bu baax waay. partagé leen ko gëmm leen partagé ko ah parce que bu ñu fi nekkul yéen a koy réclamer naan ñu ah bàyyi nga live bu ñu ñëwaatee di naan partagé leen ngeen di déglu ay dof yi leen di naan moom partagé leen rek lay wax ah bu ma fi nekkatul di live duma leen ne partagé leen bu boobaa ku nekk am na am na post temps mu nekk ci leneen waaye bu ñu nekkee en live na ci ñëpp def seen loxo comme sa euh, message bi gën a jàll waaw voilà <coughs> téléphone bi laay taal bu ngeen baal